voilà sama gars yi <clears throat> sama gars maa ngi jégalu suñu direct bi dafa coupé sànq donc gars yi partagé message boobu bu baax partagé leen live bi live bu deux minutes trois minutes lay doon live deux minutes trois lay doon rapidement ñëpp partagé ko live deux minutes trois minutes la sama gars képp ku dugg rek nga jot live bi da nga ko war a partagé waa Rëbës ñu ngi actuellement insurrection moo am Rëbës ñu ngi tiire ay lacrymogène Rëbës boo yaa ngi dajji ci kaso dajji kaso bi à Rëbës pour jubali palais de la république maa ngi woo sénégalais yépp ñu jubali rëbës jàppale prisonniers yi nga xam ne ñoo ngi daji kaso bi pour dem fekk ji Macky ci pale boobu noonu avancé leen yéen ñëpp jege rëbës di ngeen dégg tir lacrymogène yi ak bruit bu fa am waa rëbës ñoo ma woo ne ma ma alerté peuple bi yëpp pour ñu ñëw jàppale leen ñu daji kaso bi pour ñoom ñu dem jubali palais peuple sénégalais bi nar a lijjanti problème am ak Macky Sall donc képp ku jot vidéo bi képp ku jot live ñu ngi lay ñaan nga partagé ko bu baax ba sénégalais yëpp jot ko fu ñu mun ci nekk actuellement sénégalais yaa ngi jóg ndànk-ndànk il faut les encourager il faut féliciter tout le monde mobiliser tout le monde li nekkatul affaire de parti Macky Sall décidé na ne élection du am Sénégal fii ba 2027 élection du am Sénégal Macky Sall loolu la décidé fii ba 2027 élection narul am Sénégal ci ay jaloog la bëgg a réew mi imposé fi boppam troisième mandat boo xamante ni ñëpp xam nañu ni dafa annoncé woon rek dafa reculer pour mieux sauter finalement dina def troisième mandat boobu te du nekk mandat parce que du loo xamante ni da koy officialiser. donc yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen jubal jubali rëbës ngeen jàppale jeunes yi tey ci guddi ak militaires yi armée bi prenez vos responsabilités Macky Sall nekkatul un président de la République puisqu'il n'a plus de mandat boo xamante ni moom moo koy jox. Euh, la crédibilité moom moo koy jox la légitimité en tant que président du Sénégal agir leen comme malien agir leen comme burkinabé agir leen comme nigérien reprener le pouvoir pendant qu'il est temps parce que le peuple sénégalais attend des réactions de votre part armée bi ak peuple bi que chacun prenne ses responsabilités situation bi noonu lañ ko mën a fajee amul jooy amul lamante wu amul nekk di commentaire ci réseau sociaux yi ñu ñëpp génn ci tale bi ñu régler suñu problème ak Macky Sall récupérer suñu réew parce que fii ba trois ans Macky Sall du organiser élection dina am temps rey Ousmane Sonko dina am temps kon condamné Bassirou Diomaye fay ba heure bu ko neex la nar organiser élection yi condamné Bassirou Diomaye Faye wala rey ko jël Amadou Ba dóor ko ci kaso bi wala rey ko lu ko neex mu def ko ci réew mi te kenn du ci mën a wax dara donc jóg leen ngeen jël seen responsabilité pendant qu'il est jaa ngeen jëf man la kaayis foofu